أعلو يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي ما أخرايا ففيهما عن ضرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حضنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك والتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di am mbégte di leen jottali ndigal loo xamante ni mi ngi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu jëm ci bisub xasida boo xamante ni digle na ko mu war a doon alxames fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2023 war a dëppook ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru tabaski wi nga xam ni ci la ñu ne ñi ngi fii ci teewaayu Serigne Hamzatou Mbacké moom Serigne bu Mbacké dend ak Serigne Moustapha moom Serigne Mahmoudan Mbacké ak Serigne si Diop bi nga xam ne mooy jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ngir fas yéene jottali ndigal loolu leeral ko bokki taalibe yi kenn ku ci nekk ñu xam ni nga xam ni lañ ci war a taxawee ba ni ko sëriñ bi diglee bëggee ko sàkkoo ko ni ñu mën koo defee ni mu ko santaane kon nag ñu jox sëriñ Moustapha moom sëriñ Mahamadan kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, sant sëriñ ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér ñu ngi wax ci turu sëriñ Xamsatu moom sëriñ Sohaybu di soññee bisub xasiida bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Mountakha da cee joxe ndigal ñu jaarale ko ci sëñ Yuusu mu dikk indil ko sëriñ bi sëriñ bi it ndigal rekk ci lay tënku amul xalaat ci mbirum sëriñ bi fu mu ko jëmee rek mu jëm fa moo tax mu ne mu ngi ciy soññ boppam di ci soññ bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp rawatina ñi nga xamee ne ñoo tax sëriñ bi woote ko muy jàngkati xasida yi fu ñu mën a nekk ak nuñ mën a jàng xasida yi moo xam ñiy jàng njàngum kuréel la wala ñiy jàng njàngum bi benn benn wala ñi koy durus ñi nga xam ne it ñooy tax ba ñuy jàng mën a sax fañ koy defee te duñ aajowoo dara sëriñ bi nee na mi ngi ciy woo ñëpp ni ko sëriñ Lamine waxe alxamis lay doon jii di ñëw bu dellusee ñu yendoo ko ci jumaa ji ak ko war lépp sëriñ Yuusu dana ci ñëwaat sëriñ bi nee na mi ngi soññ mboolem koo xam ne nii mënoo jàng wala nga mën a jàng te mën a boole njàng mi ak def ay bernde yoo xam ne nii ñuy jàng dañ ko mën a jëfandikoo mu ngi la ñuy soññ ko bu baax a baax te xam ne kat ni ma ko daa waxee rek képp koo xam ne nii di def lu baax katax tax mën ko sottal moo ko moom ñoo bokk tuyaaba ja kon bu kenn xeeb dara moo xam lu ñuy jëfandikoo la moo xam lu ñuy naan la mu sedd wala muy lu tàng ñu ngi ci woo ñëpp te ñu yaakaar ci ngërëmul sëriñ bi ndax Cheikh Ahmadou eh, Mountakha mi nga xam ne moo ko digle moo fi sëriñ Touba te sëriñ Touba nag lépp lu mu digle yàlla da koy dëppale akub dogalam loolu daa bokk ci eh, maanaam tawfeex yu ko defal kon nañ ci sàkku ngërëm te jàpp ne ndigal lii mooy sunu faju aajo kon sëriñ Hamza eh, loolu la waxoon ne naa ko jottali ñu ngi ñaan yegg ca te defe ko ne ko sëriñ bi bëggee te am ci ngërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu nuyu bokki taalibe yëpp di nuyu bokki jullit yëpp di dikk rek ci ndigal lu màgg lii nga xam ne tawféex la bàyyi ko ci cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér te li mu nësër te naal ko ci toolub Serigne Touba mu am ci lu kawe njortam ñuy sant nag bu wér ci lii nga xam ne ndimbal la bàyyi ko ci moom jëm ci taalibe yëpp waaye jëm ci lislaam yëpp ndax xam na ne xaside yi nga xam ne <clears throat> bu mooy xaside sëñ Tuubaa yi mooy li mën a dimbali ñëpp defar jamono euh, dindi njàqare sotti xéewal joo xam ne lu sax lay doon loolu sëñ Tuubaa liggéey na ko ba noppi waaye faw ñu fàggu jëm ci xaside yi mu woote bis bi daal ñuy Euh, wan yoon wi bu yàgg nañu xasida yi lépp lu ngeen ciy def da ngeen xam ne sëñ Amsatu ngeen di dimbali loolu nag moo tax man ba ma jotee ndigal li fi saa si xaaruma dama dikk fi moom nekkoon woote bi fii lañ koy defee nun nag dañuy ay soldats yoo xam ne dañu ciy liggéeyloo waaye li am solo lépp lu ñuy def ci kilifteef lañ koy teg ñuy woo nag euh, képp koo xamante ne da nga yëngu ci xasida Cheikh matul Bachir mi nga xam ne moo yor kàddu sëriñ bi jottali na ay kàddu yoo xam ne itam ngir wane ne Cheikh mun Mountakha li mu wax lépp lu mu yëkkati muy kàddoom njabootu Sëñ Tuubaa gépp ànd nañ ko moom kàddu yooyu mu ci joxe loolu doy na sëkk la ca des mooy njabootu Sëñ Tuubaa gi eh, wër jumaa ji mbooleem kër yooyu xam nañ ne at yi yëpp saa bu ñu koy def dañuy ubbi seen i kër yaatal ko lu ñu am ñu def ko ci ngir njàngum eh, xasida mi doon loo xam ne fu ci ne dañ ko fay defee defin woo xam ne lépp day matale loolu nag ak cant moo ci war goo xamante ne dañuy yeesalaat cant googu ak fas yéene àndaat ko ak ñoom ñëpp ndax xam nañ ne amuñu ak bëgg amuñu lenn loo xam ne mooy seen yitte lu dul Cheikh Mamadou Mountakha mii nekk ci boppu njabootu Sëñ Tuubaa lu mu bëgg mu sotti loolu ak cant gu rëy mi ngi ci ñuy dellu siwaat nag euh, di sant bu wér euh, si Amsatu mii nga xam ne dañ ko ànd ak moom ndax bis bi li ko yéwénal Cheikh Mamadou Mountakha moo ci jiitu ci jëf jëf na ci lu yaatoo yaatu waaye saa su ne it Cheikh Hamsatou mi day day aw ci yoon woowu di ci jëf di ci jëf ba mbooloo mi lu ñu bari bari bari bari dina mën a doon ndimbal ci ñoom ngir ñu mën a nekk te tumuranke du fa am yoon woowu nag lañu ñu fas yeneen nu itam waa Hizbut Tarqiyyah di soññ képp ku bokk Hizbut Tarqiyyah mu xam ne bis bii bésub jihaad la ci sa ci ci ci xaside yi waaye tamit ci sa alal ngir kenn bañ a amuk te xam ne loo ci def ni ko sëñ Moustapha Mahamadan waxee ki jël ñaqam wala alalam def ko ci ngir kenn bañ a amuk tumuranke loolu kooku moo ki jàng ñoo bokk yool bi te yool bi nag mën naa dindi njàqari yëpp mën naa ñoddi xéewal yëpp te dafa mel ni sëñ tubaa fàggu na ko démb tey soog a ñëw waaye faw ñu sabablu jëm ci fàggu ndax àdduna la yàlla suñu borom tëralee noonu Euh, ndax tey ji suñu borom boo ko doon dénk ak jur sax daa di ne dénk naa ko suñu borom du tee di nga ko sàmm di nga ko di nga faggu loo xam ne mooy aar jur gi loolu mooy teggi ni jaam bi digganteem ak boromam kon nun tamit foofu ñu sabablu jëm ci xaside yi ngir sëñ Tuubaa li mu ci faggu mu mën ñu koo jox nu nu bokk ko nun ñëpp kon euh, bis bi euh, bisu alxames la di fukki fan ak ñett ci weeru juillet loolu dañ koy tàmbalee six heures du matin buñ jullee ba noppi tàmbali ko ba bu ñu julee tàkkusaan ba noppi juróom-benni waxtu muy fukki waxtu ak yaar yoo xamante ne xasida yi du du du du du dogantal ci yëkkati ak ñi nga xam ne dañ koy durs ci jumaa ji ak li ko wër ba fépp fu mbooloo mi mën a àgg dinañ ko def ndax lu ñu mën ci karal ak lu ñu mën ci fàggu luy tax nit ñi bañ a am jaaxle ci ay baas ci ay rajo ci lépp loo xam ne mooy ay laltu ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllu ndox ak glace ak ay bernde loolu moom amu ci fuñ ci yemale ndax wooteeb sëriñ bi moom kenn mënta wax a wax ba sëriñ Tuubaa daraam xaj fenn kon daraam xajul fen kon lu ñuy fàggu rek nañ ko bañ a yemale fenn li hadadin laa li xaam leneen li ma ci dolli itam mooy ñu yeesalaat suñu cant ci sëriñ Muntaxa ndax euh, dafa mel ni yitteem jenn yitte rek la mooy benn murit bu mu tal dara benn murit bu ko àdduna fàbbil fàbbil dara ndax àdduna moom lu mu jël ci yow dala ko leb waaye bu la ko lebee dootu la fay kon suñu suñu suñu suñu ñaq sunu alal sunu jot nañ ko jox sëñ Tuba moom mooy loo xamante ne dinañu ko dencal foo xam ne yàq dootu fa dootu am waaye àdduna boo sàgganee nekk ci yëngu yi àdduna yi nga xam ne amul solo daf lay fabbi di la yóbbu ci loo xam ne sëñ Tuba ba koy jaayante ba ñu jaayante moom loolu taxutoon kon lii daal mooy kàddu yoo xamante ne moom laa ci jotti jottali di di laxasaay waat nag di woo mbooleem ko xam ne daayira la rawatina kuy jàng xasida amul benn kuréel boo xam ne boddi dinañ ko jàpp ne kii la moo ci bokk kii bokk ci ñun ñëpp ñu ànd boole suñu xol te xam ne yàlla suñu borom amul xol waaye bu ñu boolee suñu xol rek mu def ko muy xolam lépp yéwén kon lii daal moom mooy kàddu yu yoo xam ne ab dongo bu sëñ bi di liggéeyloo ci lii mu fas yéene ñu boole suñu bopp topp ci ginnaaw suñu kilifa yi lépp dina yéwén incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. وسلمن سرمدا على محمد وسيلتي لك وليهب حسن الختام عندك والتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة